matee la ñu xey ñu dooral ñu rek tay buñ ko commencé ta tàggoowuñu kenn emmerdement bi si ko kenn xamul ñu ngi yor njaboot xam lan moo xew da ngay gis xey rek ñu gis bakaas yi ñu tek ñu ci kaw buntu kër gi sonal nañu lool bu ñu defee yu mel nii karkee nañ ko wax nit yi ñun duñu ay mbaam ay nit lañu rek comme ñëpp. on remarque c'est un manque de respect total par rapport à, aux habitants de, de, de Malika, vu que euh, le début des travaux n'a pas été consigné ou euh, communiqué à qui soit habitant dans la zone. Et vous savez bien que les machines qu'ils utilisent actuellement euh, peuvent être à l'origine de fissures au niveau des murs et que donc ça, c'est vraiment un, désagrément qu'ils causent nest pas, aux habitants, mais également aux propriétaires des différentes maisons d'ici vu que également euh, le Sénégal est un pays de droit, où vraiment la, loi et, le droit également sont, sont dit et, sont respectés pour tout un chacun, je pense que euh, la norme voudrait que actuellement ces travaux-là s'arrêtent et que les propriétaires des maisons et les habitants également de Malika donnent leur avis là-dessus avant de pouvoir poursuivre. Et sinon, certainement, il y aura des poursuites qui se, feront après au niveau euh, des juridictions habilitées parce que là, là actuellement, il y a des maisons qui, qui sont en train d'être fissurées. Et là, je pense que ce ne doit pas être à la charge du propriétaire, mais à la charge, n'est-ce pas, de, de, de ces, de ces euh, entreprises qui sont en train de faire la route. démb ba léegi ñu ngi dégg ay bruit dégg ay ñu teg sama buntu kër euh, ay bagages yoo xam ne daf may tere génn léegi nag ma bëggoon xam lu xew mais ni may waxee yéen nii ba tey xaw lu xew ça veut dire que ñu ngi defar ay travaux yëgaluñu c'est c'est pas des petits travaux ay travaux grande envergure la yëgaluñu population bi lu fi non seulement yëgaluñu mais ñun ñu ngi nous ñu ngi nekk insécurité totale. déjà sunu kër déjà si passage VDN ba fa yëngatu woon léegi ñu defal ñu travaux bi parce que travaux bi xaw ma ban euh, ban travaux la ñuy def fii xaw ma turu projet bi ñu ñu am mairie boo xam amul capacité pour mu ñu wax lan moo xew ci dëkk bi état bi amul capacité pour mun wax lan mo xew ci dëkk bi dañuy xey rek gis ñuy def travaux ñuy gas ñuy ñu ñuy mettre en danger di def sunu famille en danger sama kër ngi ni bu ma bëggee jàll fu ma jaar joggati fi nekk yëpp bala may egg sama kër léegi nag je pose la question lu waral li xanaa ñoom am fàtte nañu ne travaux yi ñun ñoo koy fay fàtte nañ ko de ñoo koy fay travaux yi travaux yoo xam ne euh, sunu soutenir noonu sunu suñu état si du am kon bok dañu wara xolaat xoolaat bañ ñu teg vraiment ay mbam parce que population ñom ñoom li leen lu neex daal lañuy def yëgaluñu kenn lu xew. on est là bien sûr man dama ka euh, bi VDN bi jaalee ba pare projet veden bu mo jaalee ba pare dama karewaat sama kër lépp laa karele soo xoolee si mur yi yépp les lézardé defar ko léegi peinture rek mo ci dess légui

Yo, ngi bruit vraiment son nañu bëgg nañu xam lu xew xam voilà